coronavirus li ñu deful 2024 lan lañ lan lañu deful duñ ko jaayanti Pape Ousmane il y a eu près de 170 morts hôpital Dantec bi ñu ko daanelee loolu kenn waxu ko ku nekk dans le secteur moom ma ko wax xamal ma ko 170 morts ci li ñu jotoon xayma ñoo xam ni ba ñuy daaneel hôpital bi dañu nekkoon en traitement sous traitement si ñu daaneel hôpital bi ñii amuñu fu ñu jëm ñii amuñu kii seen kër yi lañ leen di toppatoo kii bañ nekk club yooyu mooy dañu war a lijjanti kilifa yi nag ñoo xam ay raisons yu ñuy demee mais dama la ni maa la wax ak aw de billaahi cette révolution la li gën a gaaw pour yàq ka mooy président Sénégal dem toog ak président France di teg moom mu koy tegal ay conditions c'est fini. ñoom nañu ñëw mais lu tax nga yaakaar ne dem. waaye sëñ bi synonyme de bu euh, demee dañ koy teg mu war a doxal liñ ko liñ ko bëggee waaw rapport yi du changer. Pape Ousmane Pape Ousmane dominant ah. dominé lay doon tout le temps. nga jàpp ni daal bu demee Macron voilà daka naan euh, lettre de mission baa ngi nii te ci loolu rek lay dox mënul soppeeku mënu ko wax leneen lu dul seen ay intérêt ñoom. nga ah, foog ne Macron danaan ko yow sa intérêt baax na li nga lan nga bëgg ñu defal la ko. léegi yow lu tax nga jàpp ni Bassirou Diomaye du def lu mooy nangu ko ne waaw dem rek ne ko d'accord dem commencé doxal loolu lu tax gëmoo souverainisme boobu ne mun na yegg à ce niveau gëmoo ne ñu yegg si ci ci réew mi. mën nañu. la daanu doon am ñu jëmmal ko seen diggante ak Macron Pape ndaje ndaje ndaje boobu ah. ndaje boobu ndaje boobu président mën naa yónnee du secteur de la santé la <laughs> pharmacie ah. mën na yónni ministère de la santé ak wala ministère affaires étrangères du problème li ma wax ni nag man kott la concerné man maa gëmut loolu ak ñooñu wóolu ma leen mais faaw nga daje ak ñoom ba ci micro bi ngaa waxee ba ci kilaa nu ba ci serveur yi ba ci ñiy wax ak yow ba ci ñi lay jël si ba ci portière bi ñu laa ubbil ba ci kayit gi ñu laa jox nga signé ka ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci kilifa yi nag ñoom ils ont leur raison mais faaw ñu dajeeg ñoom nag. mënuñoo question dajeeg kan la Mouhamed Al Khadafi ñàkk nguur gi. mais j'en passe 2011 bi ñu ko reyee. non il a perdu le pouvoir en 2007. en 2006. 2006 quand. diggante deux 2005 6 quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'intérieur français jóg dem Libye seeti ko ne ko dama bëgg nga jàppale ma c'était le début de la fin dama bëgg nga jàppale ma voilà élection yi ma jëm ndeysaan Sarkozy falu gañe élection yi les mallettes de Kadhafi 2007 mallettes yooyu mu yóbbu woon 2007 Kadhafi bu mu gañee Kadhafi seet si ko Élysée ba Kadhafi déplacé wu dem France ndeysaan la ñàkk lépp xulil ca la ñàkk lépp parce que ba mu demee dañ kaa ubbi Élysée lu musul am. Kadhafi hmm. tànt fa Kadhafi du dëkk hôtel mu tànt ay tàntam malheureusement qu'est-ce qui s'est passé après Sarkozy am accès ci Kadhafi xam fi mu jëm li mu bëgg a def mu kaa defee fan la koy defee na lay demee la rivière artificielle Kadhafi bëgg xëcc ndox bi napp phréatique bi nekk ci suufu diggante Algérie Niger ak Libye nappe boobu nga xam l'une des plus grande du monde bëgg xëcc ndox mi def ay canalisation su des kilomètres pour que ndox mi ball biir Libye ball ci Afrique du Nord ball Afrique de l'Ouest Sahel bi ñu bay tubaab ne la kii bu doxalee Sahel bi ñun dañuy perte lii fi nekk aujourd'hui il faut pas que suñu président bi di accepter <laughs> tubaab bi di ko utiliser pour faire face à la l'AES foofu lañ jëm le jeu c'est ça il est géostratégique et géopolitique foofu la ñu jëm il faut que le Sénégal continue d'être le pion sëñ bi il faut arrêter. te bi mu demee Mali yaa ngi dégg journaliste bi di ko posé question naan ko kañ la Sénégal di dugg ci AES. mu ne ko du ci dugg. pour le moment da yaakaar ne question boobu noonu. mais question téléguidée la. ah est-ce que da ngeen di dugg wala dugg leen. c'est la position tubaab bi toog di déglu la la Sénégal di décider après soo demee tubaab bi boo demee toog ñoom injonction lañ lay jox doo toog moom naan ko lii laa bëgg taper sur la table. mënta Ah. biir dëkkam biir dëkkam non sa dëkk kër ngay toog mu fekk si la nga wax ko ko loolu dëgg kilifa nag ñoo xam seen ay raisons. Hmm. le raisons de leurs raisons qui ne sauraient être les nôtres qui ne sauraient être nos hmm. leur raison c'est leur ñoom ñoo xam. kilifa yi nag xam tuuti nañ ci di wax kilifa demal ak bul dem. waaye dama la ne <laughs> yàlla ñu yàlla doole sutura. li nga wax ni info la wala yëg-yëg la rek. Pape Pape bi ma am man. Ah, man nag du kenn. tajuma fenn duma leen yaa ma fi teg laaj ma may wax waaye xulil dañoo dund ñoom looloog looloog loolu ça fait presque saay ñaata ah siècle. plus de 300 ans 1789 1800 1900 2000 4 siècles la ñu noonu demal 12e di wàcc di ñëw li ma lay wax ni ca jamonoy Mésopotamie Perse gu njëkk ga Abys Abyssinie xulil di wàcc di ñëw. grande Perse. ñu dund ak ñoom loolu mais koo xam ni déporté na 300 millions de. des nôtres de tes de de des siens jël leen yóbbu leen sànni leen ñii ci géej gi ñii ci nangam nangam def la lu bon lu ne ci àdduna le roi Christophe Napoléon def ko invité xam nga invité. oui prison la mujjee ak moom waa ji génnaatul France ba ni mu deewee est-ce que comprendre nga messager bu la kaa nettali saa yi da sa day daw sunu baay bi Lamine Diack nu ñu ko def passeport diplomatique ancien patron de l' athlétisme mondial suqali athlétisme def ko loolu ak loolu ngeen jël ko parce que yéen tubaab yi bugg leen ñu ne ci histoire ab black moo defar athlétisme mondial takkal ko loo xam ni amut parce que c' est la Russie ñoom mosuñoo bëgg Russie jiiñ leen ko léegi fan la teer mu ñëw invitation ñooñu def ko résidence surveillée paa bi mënatul ñibbi ndeysaan ba ñu ñëwee ñëw rek dem yàlla na ko yàlla yërëm cette lâcheté la moi je la pardonne pas. moo tax malheureusement c'est comme ça. oui ñu ngi kaa ñaanal le 7 d'ailleurs sax juin bi ñu jëm ci lañ koy. ñaanal ci këram incha allah samedi bii le premier juin lañ doon ñaanal sunu beneen yaay bi di soxnaam bu njëkk di yaay ñoom Pape Massata. Hmm. sunu yaay euh, ngoone Diab Gaye hmm. sunu mbokk ab yaay yàlla na yàlla xaaral ko sa aljana yi gën a kawe. Hmm. maa ngi nuyu toute la famille Adja euh, Pape Massata Binta yi Hmm? toute la famille ñoom Kapi. Hmm. Euh, Khalil ñoom Latifa ñoom ñëpp ñu ngi leen dee nuyu bu baax. Hmm. mais sëñ bi soo bëggee dégg dëgg boo bëggee dégg dëgg. kilifa yi ñoo xam. waaye wuy ma. maa la wax ak aw de. waaw prudence. prudence soo amee chef d'état boo xam ni un de ses généraux dafa toog ci télé wax ñëpp dégg. mu ne dans dix ans il faut ñu dem attaquer Afrique. récupérer suñu ay intérêt défendre suñu ay intérêt nga toog dégg loolu soo jógee dem di seeti président boobu de dinaa man sañ na ma la wax ne la moytul. moytul la convaincre jërëjëf Passa. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye maa la ko ñaan ngir jëmmi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam bul dem yónneel yónneel sa ministre affaires étrangères wala yónneel sa ministre de la santé dama la ko ñaan dama sukk sa kanam ñaan la ka ah barke saatu Fatiha du urgence soxla wuñ ko ak nu ñu ko mënti expliquer xanaa leneen am. lu ma xamul. Hmm. lu nu xamul te yaakaaruma ko. man ka ma bëggul du ma neexoo ak yow. Ah. jërëjëf Pa Assane. après on nous parlera de diplomatie il faudra faut mais attention. Mmh. il faut pas parce que li xew nii Sénégal neexu leen. Hmm. bu ñu amoon li li nu bëgg ñoom. Hmm. li xew nii du xew. kon dem seeti leen du urgence du yàkkamti. ak nu ñu ko mënti prétexté. waay. loolooy dëgg jërëjëf Baye. ba ba ba ba ba lëkkal jàmm incha allah allah euh, matinal bi incha allah bu soobee yàlla ñu ngi leen di gërëm aussi. merci ah, pour la synchro Pass TV. waaye ak Pass TV. donc ñu ngi leen di bëggee bu baax. merci aussi à Penda Dia merci à Thiom Lay Lay ñi nekkoon ci réalisation bi euh, jërë ngeen jëf. ayaat nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi. toog sa ordinateur di tapé di kaj kaj yi kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo. ayez le courage de dire la vérité au Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquran yi. ngir ragal gouvernement bi.